ba mu ne 5000 francs sponsor yi ko ca gunge bokk na ci ETDR King Boisson Harmonia Sem Drapeau Huile Jado restaurant Loukalom BDF Caro KBCL kon gars yi baa ngi noonu le mercredi 6 novembre 2024 ci arène nationale ñu ci ak Amadia production sa kaw Dramé moyul foofu ma ngay diri de ma ngay diri ak mandal àndal bu ngay diri di dem looy diri. lu muy diri xumul la muy diri lu mu eh waaye rek boy soo sa jàngi nii. dégg nga moom it sëpp na bëtu oomam. moom booyloo. mu ngay takk ca tànk ba ca oom ba. dëgg la. la lañ leen di toppal. pël bu rafet booyloo laa ñëw pour teggi tuuma tey. waaw xale yi ngay marché nii rek. waaw ko sa ba léegi ci làmb. am na guñ ko indil de kaaf gi lu def. na ay ay ay ci picc dafay naawaloo tontu. ci picc domine yaay. picc yaay. parti bu neexoon dëkk bi toj. yi mooy taasantaw Ndakaaru. waaw xam naa ne bu ma de mooy cosaan mooy. démb loolu de mooy cosaan sa pël bu rafet. dara yàlla dëgg la pël ay wax daal yabu la ay wax xoolama xoolama fële per dooro njaxasam bi miin na stade bi duñ ko door ñaxas bi daal ah man ñaxas dootuma ci waxati sax lamb la ñaxas may ñëw dégg nga loolu waaw ñaxas day ñaxasu ñaxasu Cheikh Niang ba <laughs> bal bal yaa Cheikh Niang ju ngeen bal ñaxas bi eh, sama doomu ndey la ñaxasu Cheikh Niang bi day abu <laughs> ngéwél laa sañse ko lii ngéwél la non dafa mën a sañse naa ba mi ngi sol dem gisu ko neena neena dema nawsine ko duma dem fii laa toog mu ne ko toogal ma damay dem duma dem fii laa mu ne ko toogal man maa ngay dem am na combat moom bébé Elton loolu la 24 la ndeysaan yàggatul yàgg bawul dara yàgg bawul dara looy ba ñu jot bu jàppal bés mais yëngal réew mi kontaan nañ ci ñun waaw pël ñun ñoo fi ne nag nee nañ lii lañ bëgg ñoom barki yonent yàlla fi kenn di waaw amuñu suñ kër yi kenn fayeluñu kenn fayu fa de kenn joxe nañu dépense kenn joxe ma dépense kenn su kenn suukara suñ café moo tax fu ma neex laay xool fu ma neex laay wax kenn bu kenn bu la fu ma neex laa jëm de <laughs> yow sama formation nga waaw moo tax ragaluma di man damaa nga dara ci réew mi waaw wàññi laay wax waaw wàññi naa wax yi nag <laughs> Aïcha ñu ngi doon ndeysaan fii la lamb métti oh, pël booy loo ànd la ko dal na ànd ak dal léeg-léeg nga ànd ak ñu doon bi léeg nga ànd ak nit mu ñëw ba ci biir géew bi du bëgg ñu des ci biir géew bi. na dem ci nee nañ ko na dem ci coach suba. waaw loolu pour nan la fay dem ci coach suba fomp soow mi soow. ah soow ma. waaw daa la wala gis nga. ndeysaan lii dama ñaan pundal teen la. lamb ñu ne lii coow coow pundal teen la. kon ku ñëw ci biir bi ngay des. waaw lu waay doon jaay. lu waay doon jaay lépp mu lamb. minute. werante yi bari yi. caaroy géej waay. Lirou Diane ak Khadim Ndiaye. diwa mën diwa mën. diwa leer. Lirou Diane dafa ne moom Khadim Ndiaye xaw nañoo am faru abu coow si pëndum teen ba. ku ñëw ci bunt bi ngay yem. gaañu amul baag. gaañu amul baag nii la mais ku am baag da ngay noppeeg moom. mais fi mu ne ji. bo abu. fett fett yàgg na ci miir waaye taxul miir ba daanu. déedéet déedéet. combat bu nar a gaaw la. waaye nee la ñoom arbitre kii ñu ngay waxtaan. ña ngay waxtaan ña ngay waxtaan ak arbitre combat bi ku ko yónni gànnaar ko ñibbiloo waaw dëgg la bu ñibbisi day jàppal yaa ko ñibbiloo dëkkam yaa ko ñibbiloo waaw xam gineeru gineeru boo ko yónnee gànnaar ko demal nga toog Ya, ko delloo de waaw yaa ko di bal demuñ Mauritanie waaye xam nañ ne kaalaama sut maxana ak waaw ak caaya bari na fa torop ak ataaya lewal ak deux sa dëgg waaw bañ génne seen matériel caay. dëgg waaw. arbitre gi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ. Pël lañu ministre bi diggante Boylo ak Reenu Guy. Pël xaaral ba arbitre siffle wax ci ministre bu yà làmb bu yàggee. ministre bi nañu baalal. waaw mu joxe verdict bi. waaw ku ne xam foo féete. làmb jaxasoo na fi mu ne nii. nit ñi jaxasoo nañ. maa ngi taxañ sama yére xamu fu ma jëm. arbitre siffle na. na 19h34 minutes. 19h34 minutes Boylo. diggante Boylo ak Reenu Guy. ak Reenu Guy ndeysaan. pël ku yàgg ci ku yàgg ci gétt gi naan ci soow mi mbaa nga lekk ci ndawal li pël naan ci soow mi lekk nga ci ndawal li ku ko def ku ko wax la bëgg dëgg la da yaa ko def dëgg la yàlla bëgg waa jaa ngee sàcc da koy bañ te bi la yaay waa ji ay ca ñu ngi doon ndeysaan lewaatoo bi mbaa du yàgg am combat bi du yàgg mais bëgguma ci match nil de waaw waaw te booy loolu la war a tuuma tey de naa la man a dëgg la la koo ji la koy ji pël booy la na war a tegi tuuma tey waaw moo tax ma ne lamb ji bugguma ci match nul parce que dafa lu ko xale yi bàkkee waaw na kër yi takkar naase ñu ne la na geeru lamb ji na kër yi gis naa ko garaawul ci wax ji la ko dëgg la ruusi waaw ruusi yaa ngi màjji màjji ma ngay màjji màjji waaye la yaa ngi màjji màjji dëgg la dégg nga ni 1800 personnes 1800 ardo ardo wala dañuy xeex de. daa mel ni dina dal de. Eh, eh, protège baawat. Eh, mi ay duma waaj de. abo ah, pël yow da baax foo ne ni ñaa ngi fa yàlla sa jàmm yàgg yàlla ngay maam. mën na ndeysaan. sama xol sedd na. ayca mu ngi noonu. Ah, ma avertissement ñoom ku ne ci régie bi tey ban booy la. Ziza la Dabaax. Ziza bandi la. Dabaax Malick la. ndeysaan Dabaax. Pël ndeysaan la gars yi def ndànk nañu tee ay eh, wax kenn ko xëccoo cooli bari na sama ginnaaw lool. daa borom waaw. booy naa la direct yi bëri na. waaw waaye ku ci nekk da xool fa la si naan waxee neexee. dëgg waaw dañuy ambiance pël dëgg ne booy booy loolu ak yenn guy. nee naa la bu lamb amul dara bu ma toogee nga ne ngaaka baa ngi nii. waaw bu ay wax rek dese. ah. booy loo ak reenu guy ba léegi. oh. kurpañ yaa ngi fa pël. reenu guy li mu bëre lii mooy logique. ñi nga xamante ne xamuñu reenu guy. moo ngi yemboo ak yembu lu xonq li. ñi nga xam moo ñu woon ginnaaw. moo ñu woon ginnaaw ñi nga xam ne xamuñu booy loo. waaw. waaw gerte bi fu mu doon daa mujjee weer ndax soow mi. ndax soow mi ndeysaan nee nañ dañoo kontaan. ndeysaan ñoo leen a kontaan par bu rafet. man su may wax ak yow <laughs> eh, na ko. day jeex wala jeex loo. jeex eh, loo ak reenu guy. tegle loo mii mais reenu guy mii reenu guy gi reen yi dëgër na de. boyloo dëgg la. relatir lii alburax rek la am. jëlal waaw alburax rek la am jëlal ma relatir. xoolal ma lii. waay waay ay wax kenn bëgg ko waay. jëy Ziza yàlla nga gudd fa. ku ne amiin. ay waay xoolal ma lii Ziza jox na ma combat bi jëlal ma lii pël. alburax waay alburax waay cee alburax. ndeysaan falo fas wane. abu yaa ngi ci 2300 personnes. nañ dem 3000 kon. ndeysaan balaa ma dugg fi léegi 3000. waaw. boylo ak renou kuy ba legui rak boylo ak renou kuy wala ko nañ yegg 3000 waw eh eh renou kuy limay def ni mo renou jeex na ko jël amul nañ dul arbitre arbitre dañuy xaar nañ dul arbitre waaye ñi tey neexuñ de nañ dul arbitre de la seen problème nañ dul arbitre de dañ dul arbitre wala lan la dañ dul arbitre waaw waaw trois avertissement mënu ah, fee kon daanu ko non dañ daanu ko arbitre kenn du yow abu doo ñëwee nii waaw ah ay ca ñu ngi noonu joxe wuñ victoire déedéet leerul nee naa la arbitre moo joxe victoire te joxew waaw arbitre dafa ah, dafa war a leer naa ñi ndeysaan ndeysaan ndeysaan ay ca ndeysaan diggante Boylo ak ki nga xamante mooy reenu Boylo ba léegi pël bu rafet eh daan na ko ah, daan na daan na ko jël bu rëy jël bu rëy daan na ko buur teggi na tuuma tey takk ba xaar tey ci moom daan na jël bu rëy Boylo daan na du reenu kuy jël bu dafa décidé tey daa décidé lamb fi vaquis de rapidité il est tout René Gouy dafa jum ci xeex bi waaw may xeex dama é reeni dagg na waaw reeni o na loo dagg na reeni dagg na reen que kii arrêté la René Gouy donc c'est 2500 personnes nañ dem 3000 kon waaye abu gars yi ñun lañ bëgg waaw lii la yàlla é abu dëgg